qaama bi xutbatu nikah am na ji hmm. dañu gis benn xasida bu rafet itam boo xam ne Abu Zaydin dëkkam la ciy fàttale bu muy sarooj loolu hmm. daal ci xulaasa bi moom la xew lu xumb la itam nag hmm. ci fi ñuy takkee see comme xewal ñuy ñore loolu daal moo ci nekk mu xam ne daal loolu la daal loolu ñuy ñore loolu la man xamuñu lu gën a métti xew. waaw lu métti xew la surtout géwél lu métti métti xew la. mu ne xataa nettali na alxaaris xaaris ibnu hammaam. qaal mu ne irtahaltu laxasoon naa. min mooy Bagdad. mansour al abbasi maami haruna rasid moo ko sancoon def ko muy capitalu l'islam te jamonoom mm. loolu moo ko ñu nga wax madinatul mansour mm. waaye lu ko jiitu jamonoy bana bu ma yata booba demis xa mm. moom lañ defal muy capitalu l'islam mm-hmm. dégg nga dama bàyyee koo baxdaat ila baldati suur jëm ci dëkk buy naan suur falamma hasaltu ba ma xamalee ba ma xamee bihaa ci saari fantin dundu bay borom ak yëkkateeku mm-hmm. wala mbiroon borom yëkkateeku daraja fala ma xasaltu ba bi haa ci sóor mm-hmm. mbir moom may borom yëkkateeku daraja mm-hmm. wa xafdin ak naat ak dundu wa malika rafente daji moom yëkkati wa xafdin ak suufeel ba ma fa nekkee nag ba gannaaw gi sama daal xam na lu ma fa ah fala ma xasaltu ba ma amee bi a ci suur ba ma nekkee suur saari fantin biroom muy borom yëkkateeku daraja waxaf den tey borom naata dundu xam ne boolaa sama mbir moom man nañ ne baax na wa karafen te daji moom yëkkati waxaf den ak suufeel mel ni boo xam ne lu ma fa mënal nit ba loolu amee tuxtu soppoon naa misra dama mm-hmm. ñëw si dama jël misra mm-hmm. tawaqaana saqim mm-hmm. soppal aji garbal aji hopp di jëm ci wéy garbal yi ndax xam bu ma xam barabu xam-xam barabu sunna daaw lu ko fa tolloo jaxasoo borom xam-xam yi sunna yi dafay baax bu na ci moom ma nim sa dem fa nim sa ku yëg ne feebar ni mu maanaam ku yëg ne feebar na ni mu teg demam ci docteur waxtu sopp naa ila misra nim se na misra tawaqaana saqim soppak aji hopp ilal usaati jëm ci way garbal yi a bëgg goo xam ne mbiri bopp moo tax ma bëgg ko wal karim ak soppak aji tedd ilal muwasaati jëm ci biir balante ñu farafaxtu ma daal de fëgg xalaayiqal mm-hmm. mm-hmm. istiqaama xajuwaay mm-hmm. istiqaama yi nga xam ne ñaare moo lay téye ci barab nga gis ne wa nafattu ma bëgg. Mm-hmm. waaye xale xaamati. Mm-hmm. gàllankoor yi waral sax. Mm-hmm. ma dugg yëpp waan rawetu ma dal de war. yaa rawral farasa. mooy dafa wate tegalu bolal kay. waan rawetu ma dal de war. zahram ni naamati. gannaaw ak fasu mel wala doomi baar. an naama nee nañu mooy ma dal de wax soro di naxaamati gannaaw ak fas bu mel ni ibnu naxaama fas way doomi yoon hmm. waaj faltuma gaaw nax waxaa wàllu misra hmm. iji faral naxaamati kem gaaw ak baax hmm. ma jëm misra ak dox bu gaaw gaaw falamma daxaltuha ba ma tabbee misra ba'da mu'aanatil ayni ci gannaaw jànkuwanteeg coono bu mu daanatil xayni ak jegeñanteeg dee ma dem ba àgg Misra hmm. sonn ba xaw a dee nag hmm. laa def doog a hmm. àgg falammaa balaxtu falammaa daxaltu wa ma tàbbee Misra baada muaanatil ayni ci gannaaw jànkuwanteeg coono wa mudaanatil hayni ak jegeñanteeg dee kaliftu sopp naa bi ay ci Misra kalafan naswan kem soppak aji mandi di ci bàyyi ci naana suba wal hayraani ak soppak aji gëlëm bi dana bi dana koy sabar yi ci noor ci suba waane mais dama gis muy dëkk bu neex ak man bu xam ne la ma soxla woon daal mel na ne fii lay neexee mel naan kat sàngara bu xëy am sàngara sum naan nam day kontaane wala ku lëndamal guddi taxal jële bu ma yëgee ni soxla na leer bu mu amee leer suba nam day kontaane bu ma yëgee noonu la kontaane sopp naa bi yaa ci kalafan naswaan sopp ak aji mandi bi listibaayi ci naan ak suba wal ak sopp aji gëlëm bi tanafus sa bàyyi ci noonu ak suba fa bay naa ana diggante ba man mm. yow man ci bis atoobu danaa wër biha ci misra wa taxti te nekk na ci sama ron faratun fas atoobu mu raaji mu am benn bis ma génn te wëreelu ci mbedd mi mm. ci mbedd misra yi mm. nag woo xam ne wu yéex la jéego yu gàtt daal lay dox mm-hmm. waaw fa bay naa ana diggante ba man yow man ci bis mm-hmm. atoobu maa ngi wër bi ha ci misra mm-hmm. wa taxti te nekk na ci sama ron para sun fam mm-hmm. atoobu mu daa ji gàtt ji jeego istimbett raaytu gis naa ala jurdin bi ay ko fi gàtt kawar mm-hmm. ngir perte waaye ngekk minal xëyri ci fam xam bat an mbooloo mu xam ne kama sabi leyli ñu ngi mel ni lënt ci bi may dox damay ay nit ñoo xam ne ñu ngi taaru ñu ngi wax fas yu baax a baax a baax raaytu gis naa osbatan mbooloo ka masabihi layli ñu mel ni lampi guddi ala jurin ala jurdin ñu nekk ci ay ay way ay ngeg mooy ay way peppe mais xëyri ci fas ñu ngi wax fas yu fas yu baax a baax fasaaltu ma laaj lintijaayen nusati ngir forlu permanent waayi an osbati ci mbooloo mi wal mijati ak julluwaay ma laaj ñi fuñ jëm mm-hmm. ak luñ décidé mm-hmm. gis na la ñu ngi waaj ñu ngi waaju deferu bu baax a baax mm-hmm. ñu ngi sol itam fas ñu ngi war itam fas yu baax a baax ñu ngi def parce que al tum ma laajte anil osbati ci mbooloo mi wal muy xeeti wa jubluwaay bi leen ci jaaxeen lu sax te ngir for lu perminaatu waaye ndax gannaaw damay wëréw di perminaatu ma mën a xam fu may tànn mm-hmm. fa qiila waxeef ma ne mm-hmm. amal xawmu nit ñi day mm-hmm. fa suhóodun ji lañ ak takk dafa am takk gu ñooy seede ji de fa suhóodun way seede lañ waa amal maqasidu jubluwaay bi nag fa yim laa kon jabar la ma suhóodun nga de gu ñu teewee ñu ne ma dafa am sëy fa hadat ni mang ma may atun nasaati njël beneen ca waxtaande ala su ci ma doxat maa ngi pour rafet ànd ak way jiitu xam naa sama fas bi sax taxul koo gaaw waaye gannaaw léegi la départ nag xëru xees bi tax na li aboosa ngir naa texee bi halawati luqaati mm. ci neexatu lu ñuy far mm. pour rek man daal tiraanga ja mm. naa ci am cër bu xam ne dana ma neex lool waa xuusa ak ma làq xalwaa simaat yi aji neexi simaat yi simaat mooy taabal yooyu ñuy def ci barabu invitation yi dañu teg ay palaat yu bari yi def ay lekk yi def ay naan lekk yu wutee naan yu wutee loolu mooy simaat faax day naa ñu fëri mm-hmm. bante mu kaaba da dinaanaa ci gannaaw jàppanteeg coono mm-hmm. ila darin jëm ci kër mm-hmm. te fiyantin bina bu day yëkkate bu ci tabax wa siyantin bina bu day jaatu ci dingale bañ doxee ba mu yàgg-yàgg fekk sonn nañu la ñàgg ci benn kër kër gi dañ ko tabax ba mu siggi déedéet kër bu yaatu yaatu la boo duggee ci biir. dingir bu yaatu moo ñu ne. tasaaru dana seede moom kër googu. li baani ha ñaar aji tabaxam. bi sora yi ci koom. wata naa yëkkati. daa maa man man mm. Mm. Mm. la itam. baax na foofu. baax na foofu. nasal naa ba ñu wàccee nag an sarawaatil xuyóoli walit gannaawi fas yi ba ñu wàccee fas wa qaddam te ñu jiital alaqdaama ndëgg yi li duxooli ngir tàbbi kër gi rek moo def raaytu gis dihli saha buntu kër ga mooy miiru kër ga mu jallalan mooy lu ñu muuree bi atamarin ci ay sagar muxarraqatan yére yuñ xarxaraan muxarraqatin yére yuñu xarxaraan damaa gis miiru kër gi daal ñu ngi ko wékk ñu ko móor ay sagar yu bari wa mukallalan te de lu ñu wëralee bi maxaarifa ci ay gafaka muallaqatan yére yuñu xaj damaa gis miiru kër gi ñu ngi ko wërale ay sagar gis naa itam ñu ko wékk ay saag yu bëree bëree bëri wa mu kallalante lu ñu wërale bi maxaarifa ci ay gafak ay mexraf mooy ay saag mu àllaqat yëre yu ñu xaj wa hunaaka te nekk na ca booba saxsun jëmm ala xatifatin ci mbàjj ak ak nit ak ba koo xam ne mu ngi làmbayoo mbàjj faw xa dakkatin ci kaw toogu waaye bu yëkkateku latifatin bu daa ji ñëwét bi mu toog dañ ko tabax yëkkati ko comme dëkk e waaye defar nañu ko ba mu rafet nag wunaaka nekk na foofa sax sun jëmm ala katifatin ju làmboo mbàjj kaw xa dëkkatin ci kaw dëkk mooy espèce de comptoir mm-hmm. latifatin gudaa ji ñëwe faraba mm-hmm. nii sikkulooma mm-hmm. on waadu sahifati adresse u lettre bi kër gi moom mage na tabax bi yéeme na waaye li ma gis ci buntu bi nag tey na sama xel la mar a hadihi tarifa ak gisu ay kiiman bi wadaani hooma atasayuru gaafo gaafal bitil kal manahi ci yooyu lay gaaf ilaa hamat ku jëm ci moom jubluwaat li dalika jaaj jëm dajal ak ji yi ma gis ci buntu kër gi te daluñu sama xel moo tax ma jëm te ka ma gis mu toog ci buntu kër ga wadani honam atatayuru gafal mm-hmm. mi tilkal manahis ti weele gaaf ila mm-hmm. na waktu jël juma juulwa li dalika jasim lila jik mm-hmm. faasantu ma giñ alayhi waral ko te mu farrifil aqdar ci aji soppat dogal yi li yo arifa ngir na ma xamal man ana kan rabbuha fi daar damay gin ci yàlla rek pour nga waxal ma kooku kay maadal ku ma giñ alay waral te mu sarri fi la ci aji soppat dogal yi li yo arifani ngir na ma xamal man ana kan rëbbu hadi daar mooy borom mbéykat fa qaala mu ne ma laysa lahaa ñaalut kër gi malikun aji moom muhayyinun jëli ju ñu ràññal wala sahibun du càggeen borom bu bëggeen ñu leen di jëlal kër gi nag kuñ ko moomal exactement xam ne mooy borom kër gi kooku mu xamul parce que kenn laa suñu borom dégg nga tabax ni wa innama hiya kër gi daal mistabatul muqayyifina mu baax a baax wàcci waayu ñeeño yi lañ bu baax a taaxuraan kat yi la wal mudarrisiina ak ñeeño yi mm-hmm. gis ngeen ko baax a baax a baax mm-hmm. mm-hmm. wa innama hiya kër gi mistabatul muqayyifina wàccuwaay géwél yi la wal mudarrisina ak ñeeño yi wa walijatul musaffixina ak sadwaay taxuraankat yi wal mujallisina ak dagi buur yi lu fii daal du kër goo xam ne kenn ko moom ah, barab la bu xam daal dañ fa dajee rek ah, nit yi àddina yi ñaare ko am sa mbir rek doxale ko fi géwél yi taxuraankat yi dagi buur yi ak ñi mel noonu daal wa innama hiya kër gi mistabatul muqayyifin wàccuwaay géwél yi la wal mudarrisin ak ñeeño yi mooy borom métier yu suufe yi wa wali walijatu musaffixin tey tàbbiwaayu taxuraan kat yi wal mujalwisin ak dagibu xaalis ne fa qultu ma wax fi nafsi ci sama bakkan ma wax ci xel ne inna lillahi ala dallatil masar ku dem koo jot topp foo xamul ku dem koo jot rek topp da nga dugg foo xamul de inna lillahi ala dallatil masar ci réer ak dox waay réer ak dox mu ne he musiba am na wéyum xaalil mara ak bépp war ak sàmm way dugg boo xam ne jaguma fa du ma fa jëlee dara yàlla bu ma fekk gisuma ko yëpp tey jii de wahamamtu ma hittewoo fil haali ca waxtu woowa biru ñaa ci wëññeeku ba suma xel dañ na dëpp maanaam dogu waaye xel dañ na lakin na ni li fi nekk man ista jëntu ñaawlu naa alhaw da dellu min fori ca saman gaaw waaye ak rek buur ne wadde nag dama gis ne des nay rafet ci lu ma dégg man ak su ma dégg ak su ma dégg ak ñu ma ànd wal ka xaraata ak dellu gannaaw doona xëyri gannaaw ñëpp laa àndal. Hmm. ñu àgg ñëpp dugg. Hmm. man kenn ma arrière. yooyu hmm. dafay kañal nit dafay signalé nit. subaana damay jural daal. dama koy góol dëgg-dëgg. wala ci ma tàbbi addaala kër gi. tax mënatuma ñàkk a dugg. ma dugg boo xam ne comme far. mutajarrian ma daal di góox alxusasa ay pot xam hmm. kër gi hmm. waaye su ma tàggee ak ngay jànde ndax hmm. jaaxle lool kama yeli ju ni ki ni ki tàbbee alance koy picc alxabasa kaaw daa mel ni picc muñ jël rek di ko dugal ci kaaw waaw mu pexeem dugg ko waaye bu doon pexeem boppam rek du ko dugg mafisu ak i sajaada mm-hmm. mahruusa yële yu ñu lal mu mm-hmm. ay moket yu rafet seen ñu lal leen mm-hmm. wa namariqu ak i ngaganaay masfuufa yële yu ñu rangale mu ay ay ngaganaay yu bëri yu ñu rangale wa sujoofun ak i rido marsuufa yële yu ñu tàllal boo duggee daal moom da nga xam ne li daal dëgg la Allah fi daal barab dëgg la ay malawaar yu la yéeme ay moket yu yéeme ay gagana yu yéeme ay lal yu yéeme yëpp da nga ko fa ji wa aqbaqat aqbala te jublu si na al mumliku kii maye jabar yemiisu mbirom dana mu daagu fii burdati yi ci mbubam waaye tabax na ko mu ngi bangeer bay na xafadati yi ci diggante ay surgaam kiñ ne mooy borom bis bi mooy maye bu ñu àggsee ba toog mu ngi ñëw nag ak gaa yi ko tax nag ak li mu solo noonu ak bu ñëwee li ma la wax dañoo mën a sol dañoo xew dañoo fonk xew waaw mu ne mu ngi solo solo bañ ne noonu la nag mm-hmm. eh, te daagu nag gaa yi tar ko nag bokk na bala jublu si nag mm-hmm. al mumliku kii maye jabar yemiisu yoon dana mu jaayu fi burdati ci bubam mm. wa yatabanasu te muy bangeer bayna hafadati ci diggante surgaam mm. fa hiina jalasa ba mu jikki mm. ka annahu daanaka ibnu ma i sama munsir ibnu ma i sama la bu ñëwee ba toog doo foog ne kii baa dolo la da nga foog ne buur bu xam-xam doole la ba loolu amee naada woote na munaadin aji woote min xibalil ahmaa ci wàlli goro mooy bokki jëkkër ja ñu ñooy may kenn ñoom moo woote wax lii bëgg a ñëw ñun yu soof safuñu yu ab maana lañ bëgg moo tax mi nañ ko amalee nam gën a jëmmoo daal la waa dégg de laa xaqada wóor mati saa saana giñ naa ci hor may saasaan hmm. ustaazil asaatiir asaatiir ustaazina hmm. ki ustaaza ustaazi hmm. ustaaz ñett la mu ngi ci saraat wa qudwatu sahaasiin ustaaz diina mooy borom xam-xam yi dégg nga dina fi baax a ak ustaaz ci àddina mooy buur ak kuñ naan ustaaz la tëddu ci diina du ci àddina mooy seetu ouvrier yi mooy seetu ouvrier yi ñi nga xam ne ay ay ouvrier lañ dem ba di jël docteur sew hmm. la ci maçon wala sew la ci hmm. Hmm. bu fas haadal xaqada bi de fas fas al mubajjala bare bu ñu màggal fi haadal yawmi ci bele bis ala xarri bu daa ji rafet al muhajjal ba de bu ñu jébbal illa alladi ndare koo xam ne jaala wëndeelu na wa jaaba te mu dagg ci gox ñun nit bisam la xam bis dañ koy fonk lu soog ñun bëgguñ ci dara léegi nañ ko amalee nu mu gën a jëmmoo koo xam ne ñëpp xam nañ ko ci suñ mbir mii kooku na mën ko fàtte baax na ko la anqada du fas hadal anqada bile bari bu ñu màggal fi hadal yawmi ci bile bis al axarri bu daa ji rafet al bari bu ñu jé jébbal mooy bu illa alladi la rek koo xam ne jaala waleelu na ci gox yi wajaabate mu dagg ci gox ndaray koo xam ne jaala wandeelu na wa jaaba te mu dagg gox yi wa te mu màgg fil fudyati ci ñaan mm. mooy wëyaan wa saaba te mu béy jaw ci mm. ñu ne mbir daal mm. ku cosaanoo ci mbir daal lañ bëgg mu méngoo ko moom daal ñun ñëpp ñoo ko war a amalee nam jëmmohee la gars yi jëkkër ji wax fa ajaba yéemuloo raxta fan jaba yéemuloo raxta sihri gañe goro yi maa li nga xam ne asaaroo junju nañ ñoom ahma yi ilayi jëm ci moom mel ni bokki goro yi it nag mooy bokki ndaw sax loola it moom réy na ci ñoom neex na leen torop waa sinoo ñi digal ñi digle bi darin man soosi ci teewal li ñu yaxal mooy li ñu wóoral ale yi ci mais là ñun kay yu mata ñu gënal. Mm-hmm. su ngeen amee koo xam ne tànnal ngeen ko seen bopp sax. Mm-hmm. ñun donte ñoo moom maye bi. Mm-hmm. may nañ leen ñu méngale ko fas sëy bi. fa barasa dal di génn hiina idin ca boobale seyxun ak ak góor. ba ko defee ak góor dal di génn. ku xam ne xat amaala jengal na almalawani suba ngoon xaw ma taxawaayam. góor gi magete na ba sëgg si na mm. e, taxawaay bi jekkatul mm. wana wara te leeral alfataya ne guddeeg bëccëg mm. saxaama te kawaram gi mel ni gàncaxu saxaama léegi mag na kawar gaa ngi weex tàll ak bi jaaw leer leeral bi jaaw fa tabasara dal di béglante aljamaatu mbooloo mi bi iqbalihi ci jublu sim góor gi nag lu jógee ba ñëw nag mbooloo mi yëpp kontaan ne mu nga de ñii ko wane mu nga de mu nga de wa tabadarat ñu jëkkalante ila iqbalihi jëm ci teerum ku nekk rek de def la nga man ci recevoir ko iqbalu day fi mooy teeru gan recevoir ko yaatal ko daal fa tabasara dal di bég béglante aljamaatu mbooloo mi bi ci jublu si góor gi mm. wa tabaadarat ñu jëkkalante ñu mbooloo mi mm. ila iqbaalihi ci teeru góor gi mm. diggante lalal ko yaatalal ko falamma jalasa ba mu jékkee moom góor gi ala zurbiyatihi ci sajaadaam mooy lal biñ ko lalal xam ne ci lay toog di ba wasara biyu mabsuusa zurbiya mooy mufrat bi mm-hmm. bi mu toogee ci sa jaadaam bi mm-hmm. wasakana seddal a daw daawu coow li ay bati yi ngir webum xam mm-hmm. ne kenn waxatul dara nag kilifa dëgg la jëmmi la amee ñëpp ko respecté mm-hmm. bi loolu amee is dala ba jege na ila yi jëm ci wéeru waayam xam nga bët bëtu ndekkaay yi ci toog lañ koy defee dafa jaglu mu toog wéeru wa masaha mu raay sabalatahu sikkiñam bi yadihi ci loxo mu dal di jàpp sikkiñ bi ci loxo bi summa qaal topp mu wax ne alhamdulillahi almubtadii bil ifdal wa qudba bi hajja alhamdu mbooleem cant lillah aji saxla ñaar sama borom almubtadii karaaji tàmbalee karaaji jekkee bil ifdal ci gën ci gën yàlla mi nga xam ne mooy jekkee baaxee mbindeef Mm-hmm. balaa mbindeef da doon lenn mm-hmm. moom mooy ki ko baaxee xamal ko mm-hmm. te bu amutoon it du ko wàññi dara waaye mooy xewal mbindeef bi nag génne ko ci ñàkk yóbbu ko ci am al muqtadee ku daa ci pent lin nawaali ci may yàlla mi nga xam ne royewut joxe ci kenn te law daal baax gune rek moom mooy ki ko wane al mutaqarrabi kade kuñ jegeñee ilay jëm jëm bi suwaali ci laaj ko mm. yàlla mi nga xam ne diko ko laaj dana waral mu gërëm la mm. a mm. la tasalanna bunayya aadama haajatan mu ne ngeen la bal di tawatal soxla ndoom si aadama wasalil ladi la tuhjabu bu laaj rek ki nga xam ne buntam duuru laa tasalanna bunayya aadama haajatan wasalilladi awaabuhu laa tuxjabu allahu yaxdabu in tarakta su'aalahu borom bi boo ko laajulee mm-hmm. mu sib la jéppi la mm-hmm. wa bunayyu aadama xiina mm-hmm. yusalu yaxdabu waaye ndoom si aadama nag hmm. boo ko laajee rek bu ne kii sonnalekat la hmm. te loolu bu baax a wax na al la tasalanna hmm. bunayya aadama haajatan nit jarul ngaan ko faa bëgg lii faa bëgg laa wasali ladi la tuxjabu da ngay laaj ki nga xam ne buntam duhubu benn in tarakta su'alahu wa bunayyu adama hina yus'alu yu'dam ya'dam mi daal la teme mi daal la teme wax dëgg de wax dëgg de wax dëgg de mooy mm-hmm. daan nañu ko nettali de mm-hmm. kilifa gi ko yar am màggatam am mag am mag moo ko yar mm-hmm. waaye da ko gaaw a gëm loo ñaan tarbiya xam maam la ci moom xam waaye daal ki ko yaroon mooy doo gune daal daan na def léegi waxtu lekk bu jotee mu denc lekk dina ko nañ ñaan yàlla añ <laughs> waaw xam nga xam ko day jege ko ñaan yàlla. façon hmm. yooyu la ñuy ñaan. Hmm. moom noonu doon tarbiya di ñaan te wut bu baax a baax. Hmm. waaw waaye nit ku baax dafay gëm ñaan. waaw te lu mu baax na de. ñaan baax na de. la tasalanna. bunayya aadama haajatan. la tuhjabu. gannaaw laaj rekk la mm-hmm. laajal ki buntam lu tëj mm-hmm. allahu mm-hmm. in tarakta su'alahu wa bunayyu adama hina yus'alu yaxdabu al mutaqarrab kale kuñ jegeñee ilayhi jëm ci moom bi su'aali ci laaj ko al mu amal kadi ku ñu yaakaar ne taxqiqil amal ngir dëggal mébét yi borom bi nga xam ne lépp luy mébét yaakaar nañ ne moom rek mooy xam nañ ne moom rek moom rek lañ ci yaakaar ci sottal ko alladi mooy ki nga xam ne soraa yoonal na mu asakata asaka bilam wali ci alal yi mooy ki nga xam ne moo yoonal asaka ci alal yi wasajara te mu jàjji mm-hmm. an nahari sual ci gëdd kuy laaj mm-hmm. moo wax ne laaj kat duñ ko gëdd mm-hmm. waa masaila fala tanhar wana daba te mu xoote ila muwasatil mustarri jëm ci dimbalanteeg aji loru moo santaane ne bu mbokk loroo ñun ñëpp nañ sol lorga seet nuñ ko teggee kenn ku nekk def ca lam jaman waa mara te mu digle moom yàlla mm-hmm. bi inaamin qaaniin mm-hmm. wal muxtarri mm-hmm. dafa ñu ne qaani mooy kuy laaj mooy ki ñàkkata laaju wala qaani mooy ki ñàkkata laaju muxtarri mooy ki ñàkkata laaju waatimul waa mara mu digle bi inaamin qaaniin ci la ci ci lehal aji doylu mm-hmm. mooy koo xam ne xamul mm-hmm. te nag duy laaj mm-hmm. wala day laaj wal moo tërde ak aji xaar mooy koo xam ne xamul wóoralul laaj wasafa te mu mel la ne ba da wa jaamam ñi al muqarrabina ñari ñuy jegeñal fi kitaabihi ci téeréem al mubin bu daa ji biral wooten fa xaal mu wax wooten asdaqul xayri moo gën a dëggal ci way wax yi mu melal jaamam ñi ko jege mm-hmm. ci téeréem bi di alquran mm-hmm. dal di wax te ku wax moo gën a dëggule mm-hmm. ne walladina fi amwalihim haqqun maalumun lissaili wal mahrum walladina ak ñi nga xam ne fi amwalihim nekk na ci seeni alal haqqun haqq maalumun bare bu ñu xam li saay li ñaal miskin mi loru de lay ni mm-hmm. gune taalibe gi de yelwaan mm-hmm. nga mën koo jox dara mm-hmm. nga re ko jëriñ nga re ko jëriñ nga re ko sarax wal mahrumi ak mahrum mooy ki xamu te man da lay ni ki mag mi mën a du dara ni nekkam nga re ko jëriñ yooyu yëpp daal ñu mu ne ñooñu ñu ngi bokk ci jaamam ñi nga xam ne gërëm na leen ay taal ne fam lañu Ahmadu moom maa ngi koy sant moom yàlla. Mm-hmm. alaamaa ci li nga xam ne rasaxa warsak lena ko. Mm-hmm. min toomatin ci warsak haniyatin bu raaj neex. Mm-hmm. maa ngi koy sant ci xewal yu neex yi nga xam ne warsagal nañu ko. yu bari am nañu ko. te sonnee wuñu ko. ci baaxam la. waaw du maa ngi muslu bii ci moom. Mm. ministre maa ngi tax watin ci déglu ñaan. Mm. bilaa niyatin ci lu dul yéene déglu ñaan gu waa du tëg yéene. Mm. kooku maa ngi lay ma ci. maa ngi koy ñaan musal ma ci. maanaam la ci arab. su nit dala laaj dara te xamuloo ko. maslaha ci waxtaan. sàngale ko ñaanal xettale ko de ko ñaanal buntu. am buntu ci li muy wut. bu doon ñaan yi bu guddi ko dégg. moom daal gannaaw na ba laaj. naam rek. yow mi koy ñaanal mm-hmm. na wàccoog moom rek la mm-hmm. waaye du yéene ko ñaan gi mm-hmm. moom it ñaan luut ku ko doon defal soxla ku ko baña soxla rek la bëggoon dégg jërëjëf bu baax a baax waaw du maa ngi muslu bii ci moom ministre maa ngi daawatin ci déglu ñaan bilaa niyetin ci lu dul xéene waaw su du maa ngi dëggal te seede ne an naka luy mbir laa ilaha déet buur ba xëye jaamu illallah dara yàlla wax dawa mbirom mu daa jiwee laa sharika lahu daa ji bokk la woo di ko ñaaw ilahan mu muy borom bu xam ne ji sii dana mu fay al mutasaddiqina way saraxa yu góor wal mutasaddiqaati ak way saraxa yu jigéen yi waaye ma ko te moom buur boobu hmm. a riba riba bu hmm. duggee ci halal barke du ca amati hmm. wayu bii a sadaqaati sarax yi alal buñ ko saraxee donc buñ cay saraxee borom bi da ci da koy sakkanal wayu mu bëril a sadaqaati sarax yi waa su du baa te seede ne am na muhammadan muhammad abduhu jaamam la arrahim bu daa ji wa rasuluhu te yonentam alkarim bu daa ji tedd ibtaasahu yónni na ko li ngir na pare azulmata lëndëm bi dayayi ci leer sama borom da ko yónni li yuxrija naasa min azulumaati ila noor moo leen génnee min zulmatil kufri ila nooril imani billah moo leen génnee itam min zulmatil maasiya ila noori taahatillah moo leen génnee itam min zulmatil riya ila al imaanu billah aga taatullah hmm. aga ixlaasu lillah hmm. ay mbir la yoo xam ne daanaka leer la hmm. waaye nag sulu maa di moom bëri mu mu jamoo sulma bi ah, mu faradal nóor bi ne yuxrijuhum min azulumaati ila nóor yuxrijuhum min zulmati alkufri ila nuuri aliman wa min zulmati alkufrani ila nuuri sukri wa min zulmati riya ila nuuri ikhlaasi lillah dina ko baax a selo booy yëpp daanaka moo iman mënuñoo xaajaloo ibtaxasa oo yónni na ko mm-hmm. liyan taxa ngir na folli mm-hmm. abul mata lëndëm bi dayaay ci leer mm-hmm. wayanta si ba ak mu jëlal xaq lil fuqara ñaal way ñàkk yi minal axniya ci way xoomal yi lii xaqi fuqara yi ci awalul axniya mu jël ko jox leen Mm-hmm. farafaqa mu yërëm moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. bil miskini ci miskin mm-hmm. ba tax na ku ko xam rek xam nga ne ma ma yërmande ci miskini yàlla yi ba mu war a no allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan waxsurni bi zumratil masakin dina ko baax a baax kon xam nga xam nga am na fu mu kenn ku baax a baax mm-hmm. te loolu la daan dundee yeneen bi mu dëkkoon mm-hmm. ñoo bëri woon xalal lañ mm-hmm. ñoo bëri woon gàtt lañ wàllu càmm ci la daan liggéey waaye moo dana ngoo romb téeméeri gàtt mosu kon na ngoo romb benn yoon te itam xamuñ ci dundam mu yar nag kenn ku nga xamuñ ci dundam mu yar nag kenn ku ma dara mu ne téeméeri gàtt kenn ku baax a baax waxafada mu suubeel mm. janaawoo mbaggam mm. lil mustakiini ñaala ji toroxlu mm. te itam lu mu doon raw raw nit ñi teewut da daan wàcc si baxan rek ñoom da leen wax luñ mën a xam da luñ mën roy ànd ak ñoom comme Hmm. ci jaami yàlla yi hmm. moo tax mu jëriñ leen bu baax a baax hmm. lam yamtahinna bi ma saa yaloo xoolu bihi xifsan alayna falam nasab walam nahimi wa farada dogal na moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam al huquq ay warugar fi amwalil muslimin ci xaalani ñi xoomal wa bayana mu biral maa li nga ne jiw dana mu war lil muqillina ñaal ñu néew le ñi al muksirina ci ñu bari le wax ne ku am alal hmm. li ko war ci ki amul alal hmm. sallallahu alayhi salla yàlla def salaatu allahu yàlla alayhi hmm. salaatan salaatu boo xam ne tuhdihi dana ko xejalee bisul fati ci gën a jege Mm-hmm. yàlla yàlla defal ko salaatu boo xam ne mm-hmm. day yokk ciram ci yàlla yokk maqaamam waxtu wu nekk mm-hmm. waala asfiya yi ak ci ay xaritam salaatu boobu yàlla nekk ci ay soppeem awale suppa te ñere ñooy suppa ñere ñooy suppa awalu suppa mooy yonent bi sallallahu alayhi wa bi mu demee Makka Madina kon ba dafa tabax pàkkam defar fa néeg fu sayyidatuna Aysa ak sayyidatuna Sawda hmm. dañ fa liggéeyoon benn mbaar hmm. boo xam ne suuf lañ ko daan hooyee hmm. masakinu sahabati ñoo fa daan nekk mooy ñi nga xam ne gàddaay nañ jox gannaaw seen halal jox gannaaw seen lépp Hmm. yàlla jaral na leen ko hmm. ñu ñëw Madina hmm. fekk si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñooñ ñoo daan nekk ca mbaar moomale ñooñ la la ñuy wax ahlu suffa ñooñ ñoo ëpp xam-xam ci asaabu nabi ndax ñoo gënoon a soxoo moom Abu Hurayra ci la bokkoon ñoom la bokkoon ñooñ yonent bi ni mu leen daan dundalee maa mooy waxtu lekk bu jotee daf leen di tasaare ci biir dëkk bi hmm. diw ak diw àndal diw ànd leen ak diw ngeen dem lekki këram hmm. diw ak diw ànd leen ak diw ngeen dem lekki këram hmm. ba mu des fi ñoo xam ne xañ na li fi rot bi buñ ko lekkee mën a am duñ téye mu doog wax ne ñooñ nañ su fekkee nit andi na fi barab tuddee ko sarax ñoom la ko jox ndax hmm. yonent bi du lekk sarax su fekkee nit andi hadiya hmm. bu jëjalee kem la mooy soxla yi la jaaris ñoom la koy jox hmm. ñoom la ñuy wax awlu suffati dégg nga inda tahasin nabil hadi yufarriquhum naa ko waaye noonu ah, daal la ah, naa noonu noonu inda tahasin nabil hadi yufarriquhum naa mu ngi ci xel asu saab waaye noonu la daal même de temps si na bi defal ma sama xalaat sama téere yi ale sahabati yaatil ala bil umami même de temps si na bil haadi yufarriqu ala sahabati yaatil ala bil umami su fekkee fàtte wu ma ko mudallarun susbatan dafa wax ne ca pàkk booba ca la tabax néegam hmm. bañ taxawee bañ tabaxee tabax bi bu mu yëkkateeku tolloo taxawaayu doomu aadama hmm. lañ ko xëddee tuuti tàndarma hmm. wa fiihi masjidahu yabni pàkk bii nii hen ci la tabax jàkkaam wa saqafahu min al mu xëddee ko tuuti tàndarma yusaawi qaamatan nasabi hmm. mu tolloog taxawaayu doomu adama hmm. ndax biñ koy liggéey daf doon wax ne harisun hmm. ka harisi musa sumamatin wa qasabatin wal amru ajal min dalik mu defa benn mbaar bu ñuy wax suppa wala musallalun aka mbaar mu xam ne yat hoona suppatan seen waaba fa bihi ci mbaar moomu mhm. yéem daan na tàpp mhm. ilayhi jëm ci moom masakinun ay miskin minal umami ci sahaaba yi mhm. ñu bari ci masakinu sahaaba yi mooy ñi gàddaay bàyyi seen alal bàyyi seen lépp gannaaw yàlla jaral leen ko ñu ñëw madina andi wuñ fi halal ñu bari ñoo daan dal ci mbooloo moomu inda taasin nabil haadi yufarriquhum ala sahabati Mm-hmm. waaw waxtu lekk bu ñëwee mm-hmm. daf leen di tàggale ci biir kër yi mm-hmm. ba def ñoo xam ne xañ na li fi nekk dana leen doy mu jox leen ko ande ma taw ne yaatil ahla bil umami ubalee mooy la demee dégg nga noonu la demee ñooñu ñooy ahlu suuf ñoo ëpp xam-xam ci asabu na liñ xam ci yonent bi de ñoom rek ñoo ko jox ñoom ñoo ñoo koy xam de mm. ndax dañoo toq woon ak moom moo tax mm. <laughs> dañoo toq woon ak moom mm-hmm. waaw Abu Hurayra te ci ñoom la bokk mm. saraa yoona an nikaha sëy li tataasaboo ngir na ngeen tegu sama borom tabaraka wa taala dafa mu ne ànd gu ne ku góor ki ak ku jigéen ki ku ci nekk jikkoom da ciy deferoo ku ci nekk da ciy doyee gor bu mat ngor Mm-hmm. lool lañ ko yoonalee mm-hmm. su ca doom amee mm-hmm. loolu lañ ko yoonalee su su ca doom amul itam loolu lañ ko yoonalee daal fa inna allaha yàlla saraa yoonal na mu an nikaaha sëy li tata'assafoo ngir na ngeen fegu borom bi dafa yoonal sëy pour na ji ku góor ak ku jigéen da gor bu ma wasan na yoonal na atanaasula ngir texante hmm. li kay tata tatadaafoo hmm. ngir na ngeen gën a bëri hmm. muy dogal njaboot ci sëy ndax gën a yokkoo ci sëy li libu nit ñi da ci gën a yokkoo lii hikkama bi mooy ñaar ñi ko séq ku ci nekk rek na doon ndimbalal morom ma ba morom du mooy yàlla mukk nekk góor piir loolu mooy cosaan bi waaye dana ci njaboot hmm. mu waral mbooloo gën cee bëri hmm. wasat na yoonal na atanaasula gerte hmm. e li kay tatadaa boo ngeen na ngeen kulu fa qaala wax na moom borom bi subhanahu li taarifoo ngir na ngeen xam borom bi wax na ne yaa ayuha nnaas yéen nit ñi inna ñun xalaqnaakum bind nañu leen hmm. min zakarin tukkee ci góor wa unsa ak jigéen hmm. ku mën a doon rek dañ koo bind hmm. ci diggante ñaari nit la ak bindam xamee muy nit ku góor ak ku jigéen wa jaalnaakum def nañu leen sooban ngeen di ay xeet wa qabaa'ila ak ci ay giir ñu def leen ngeen di ay giir li taxaare foo ngir na ngeen xamante loolu la yàlla wax waasa kii nag góor gii nag abu darraj noonu la góor gi tudd darraj xëy na mooy doxaakoon xëy na dana mën a dox de yaakaar naa abu darraj wallaaj ibnu xarraj wallaaj duggaakoon ibnu xarraj yin kay doomi génnaakoon mu ne góor gi kon yaam mu ngi tudd abu abu darraj mu ngi tudd wallaaj Hmm. bàyyam tudd Xarraj hmm. kon Abu Darraj Wallaj ibnu Xarraj hmm. mooy ki may jabar sur kay borom xar kanam alwaqaayi bulaa ji dëgër ngir ñàkk kerta eh, ku ko xam nag xam nga ne sañ gi ci ñeeño moom bàyyi wu ci dara sul kay borom xar kanam alwaqaayi bulaa ji dëgër ngir ñàkk kerta ku ko xam xam nga ne sañ gi ci ñeeño moom wu ci dara wajib ci ak fen assurance daa ji wóoral e ku ko xamit ne neex kaddu gi e bàyyi wu ci daal wal hariri ak ak baw mooy coow wa siyaara xaaju e ku ne xam ne itam ku bari coow la wal ibram ak yokkatloo wal ilha ak sëppoo son lekat la ala ko leal góor gu tëla daal kooku nag yaxtu bu te lii tasa ahliha aji bëri waxi ñoñam mm-hmm. wa sori tasa baaliha te de kem jëkkëram mm-hmm. xam abil abbas mm-hmm. mu ne ndaw si xam abil abbas te lu ko baax a baax góor gi wallaay ibnul xarraj ah ñoom ñaar nag comme ñoom ñaar lañ bëgg a boole nag mm-hmm. ñaari ku ñu maa la mm-hmm. ñoom lañ bëgg a boole mm-hmm. li maa ngi li nga xam bala xawoo jot na ko min iltihafiha ci lamaya moom xambal bi ilhafiha ci sonn leem wa israfiha ak jéggi dayoom fi israfiha ci jege ñam ndax dégg na ni melee wan ki ma seex ak gaawam ala ma seex ci dundam mm-hmm. wan ci a seex ak yëkkatekum mm-hmm. ende yàlla seex bokk loolom mm-hmm. ah dégg na ne daal moom ba bi tane yi bokkam kon ku tey bokkam la mooy nañ dajee bokk waqat fasala jox na laa ñaxal ko mina sadaqi ci can jox na ko solla xan lambay wala solla xan gafaka bo hmm. xeetu gafaka la hmm. waxokkaasan ak xet hmm. eh, jox na ko itam xet dégg nga hmm. wasiqaan ak muuraay laalu hmm. loolu la hmm. wakkaraasan xeetu kaaf xeetu koor xeetu kaaf la xeetu nguur la xeetu nguur la xeetu nguur la dégg nga xeetu kopp la jox na ko nii waqat badala jox na laa ko mina sadaqi ci can sollaa xan gafaka wa mokkaasan ak xet wa siqaan ak muray wa karrasan ak kopp ak mbuus faan kiwo nañ ko saydoo in in kaa xam ne jëlee kemam wasiloo ta na ngeen jokk xablakum seen buum mm-hmm. bi xablihi ci bokkam mm-hmm. kon diggante bi xam na mm-hmm. liñ laajoon joxe na ko kon léegi ndaw si soxna la góor gi borom kër la te ne yàlla baal wéy nu tubtum bu ngeen ragalee xay la tan ñàkk fasaw yoon yi comme xet na leen doylu loo allah yàlla mi fadli yi ci ngëree la mooy li yàlla baal <laughs> loolu mooy wax rek dégg nga aqulu maa ngi wax xawli sama waasa ji maa ngi wax li may wax nii. Mhm. waa safiru te maa ngi jéggalu. Mhm. allah yàlla alazima. Mhm. lii ñaal ma. wala kum ak ñaal leen. ñeen Seydina Abu Bakrin. moo ko jëkk a wax. waa aluhu ngi koy ñaan ayub fira ba mu bari la. fil ci wàcci wayi. nat kum seen ngerte. maa ngi ñaan yàlla mu barke sëy bi. njaboot gu yaatoo yaatoo am ci. wa yaxrusa te soxlakum seen mbooloo. ne maa ci biir ci yi. maa ngi ñaan itam mu aar leen defal leen jàmm. kooku bi pare la. falam maa faraha. ba sottalee aseefu góor gi. min qurbatihi ci qurba. wa amrama te mu dogalal. leen xatani ñaal goro yi. xaqada xidbatihi fas labatam. góor gi ba mu xutba ba fa sëy bi mm. te saa xatarob naa mm. minan nisaari ci may yu ñu wisaare mm. maa lu xam ne istaaraxa na mu xaddal iksaari dayo bëri waaraate mu xii asoyi aji nay bi lisaari ci hëbal mu ne boo gisee mayekat yi li ñuy sànni kenn mënu laa wax mu bëri mu ne boo gisee maye li ñuy sànni kenn mënu laa wax ni mu bëri mm. boo ko nekkee loo dëhër dëhër mm. ba nga dindee sànni sax mm. doo ko yëg te saa xata rot na mooy toflantoona meneen ni saari ci may yi ñuy wisaare di ko sànni maa loo xam ne saara xalabal na mu xaddal iktisaar dayoo bëri waaraate mu xiraatu ne ji li saari ci yafal su ma naada topp buur ak seexu yasaabu mbiram dana mu diri mm. salaate la woo ay lafitam mm. mooy lafiti yéreem mm. góor gi buur foofa nag ak nim solo ba ne ji nag mu ngee dox nag de wat lafiti ay woy suubeem xam naa fokkat ya nga xam ne ñoo ko doon liggéeyloo te ñoom la ibnu Hammaam Haaris nee na fa tabiatoo ma topp ci rek gannaaw bañ kumpa rek kala mm-hmm. nama ma topp ci rek li antura ngir naa xam mm-hmm. ma jatal xaw mi taxawaayu nit ñi mm-hmm. ndax ma xam nit ñi fa ñooy taxaw yi da leen faa tëyee woo mi la ak ma mottali bay jatal yow mi taaru bis bi ak itam ji taaru bis bi rek topp ko rek fa haaje bihim ak ñoom ila simaatin jëm ci ñam yu ñu ràññale mm-hmm. mu ne bañ demee bañ dal ay taabal moo fa nekk mm-hmm. taabali ay palaat yu bëri lañ ci ràññale mm-hmm. ay xeeti ñam yu bëri ñoo ci nekk yoo xam ne zayanat rafetal na ko tuhaa tuhoo wuy toggam mu nekk ñam yoo xam ne togg yu rafet lañ leen togg watanaa safa tehemoo jihaatoo ay wàllam couleur ne ci taar lépp bokk rafet mm-hmm. ñam bu nekk mm-hmm. la ca war a dem ci rënd mm-hmm. ba koy safal def nañ ko ca la ca war a dem ci parfum ba koy xeñal def nañ ko ca parfum dul nit rek moo baax am na ay xeet ñam am na ko am na ko ni ko oto xaar yi li daal ñoom it na ko waaw mm. ah, du rek moo ko mm. am na yoo xam ne da nga koy def ci ñam mm. pour na neexal xeñ gi rek na ko xeme mul rek na dalal xelam ki koy lekk waaye duut ne sax moom la ñam bi di sax yëpp am na ci xeeti ren bi dina ko baax a baax watana sabat texe moo jihaatu ay wàlla filut ni ci taa fa hiina rabaa waxtu wasaxee nag kullu saxsin bépp jëmm Mm. fii ribbatihi ci góoru waayam mm. watafiqa mu xarab mm. yartan di sàmm fii rawdatihi ci dërëm bañ demee ba ku nekk toog ñu jox ko palaatam mu tiim de lekk ba ñëpp song in salatu rocceeku naa mina sabbi tukkee ji sabbi dama rocceeku ndaw ci biir wa faras ma daw mina sax bi tukkee ji xare bi mel ni ku daw faxaana dal di kay jël hmm. mina seeni ci góor gi hmm. laftatun geesoo ilaye jëm ci man hmm. wanaratun ak xool bu xam ne xajama songeena mooy daleena biyaa ci man tar boo gisama laye ci man bi may roccee ko amul benn yëngatu kenn di geesoo góor gi nag bi muy geesoo rek ci sama kaw may def tuuti moo def fa mu ne ma ilaa ay ne foo jëm jëm ban yaa buram bon yow ñëwoon kopp dëgg nga ñëwoo ay li tax mënoo bokk ay nit dalee ñëwoo nit da ngaa siis hmm. loolu la moom yow ñoo kopp dëgg nga yow ñëwoo nit li tax mënoo lekk ci mbooloo mooy da ngaa siis hmm. <laughs> loolu la moom ila ay na foo jëm yaa buram mooy yow yow ñoo kopp bi xam hmm. naa en sarta tey nga àndaale mu asara taman àndalee koo xam ne fii nekk na jëm karamun tedd ga. Hmm. te ngaa def definu kër ñeme lekk ci moom. Hmm. xam nañ ne dëgg lekk boo fi dawee suñu lekk gii. Hmm. li ñu gis mooy yow da nga binu lekk ci ne fa qultu ma ne ko. wala bii giñ naa bi nga xam ne. xalaqa bind na asamaan yi. sibaaxan ñu di déele wa tabaqa te mu déele leen mooy mu def leen ñu ay tabaqa hmm. israxan ci leer hmm. laa suxtu den may mos hmm. lamaxan lu tuuti wala lutu den may mos ruqaxan mburu aw tuxbirani lu may nga xamal ma ay na ma def bu sibaaka ay na ma def bu sibaaka fan mooy yukkatu waaye sa ndaw waaye nag fan la ma hab bu sabaaka waaye sa galabu sabaaka ma ne ko bu la neexee nga waaye gis nga li ngeen ci ni bëgguma ci dara mm-hmm. soo yeboo mu neex la soo yeboo mu naqadi la mm-hmm. boo bëggee ma lekk mm-hmm. dag ma wax yaay kam wala boo ko defu soo yeboo nga dee waaye lii du ma ci lekk dara bëgguma ci dara la <laughs> dégg mais loolu laa ko wax hmm. ma ne ko walla bi giñ naa ci buur bi nga xam ne hmm. xalaqaha bind na asamaan yi tibaaxan ñu di déele hmm. man yàlla la doxale sama diggante yow may la gise ci yàlla wa tabaqaha te mu déele leen mooy mu def leen ñi ay tabaqaat israqan ci leer ne laa duxtu den may mos la maa lu tuute tuuti laa wax du mu ko mos ci li ngeen lekk nii wala lu tu den may lekk ruqaaxan benn mburu bëgguma ko aw tux birani ndare nga xamal ma ay na madab bu sibaata hmm. fan mooy yukkatuwaay sa ndaw hmm. yow ana fan nga dëkk hmm. wa ay na fan la tëkkee mahab bu sabaa waayu sa sabaa sa ngelawu sabaa ana ko bàyyee ko nga ñëw fii mu ne fatana fasa mu nokkat nag asuhada nokkat gu miraaran ay yoon mu ne xel ma mu dëkk mu nokkat dellu nokkat waasala mu hebal mm. albukaa rongañ mm. midraaran muy sotte ko a mu commencé jooy nag mm. ndeg fàttale ko dëkkam nit li dàq ci dëkk ci dund te mooy ayaamu sabibati wa ci dëkkam la koy jeexale moo tax fu mën a dem ci àddina bu xelam dajee dëkkam rek dana am lum yëg wa Mm-hmm. awtaana rijaali ilayhimu mm-hmm. maaribu qadaha sababu hunalika mm-hmm. ida zakaru awtaanahum sakarathum hoda siba fiha fa hannuuni dalika xaj na loola ko dal daal mu nokkat hatta ida tansafa ba mu ŋaccee addama rongañi ba mu ŋaccee rongañi nag istansata mu jellantuloo aljama mbooloo mi mu mm-hmm. wax mbooloo mi ne déglu leen tuuti moo def mm-hmm. wa qaala mu wax lii ñaal moom mu ne ma mm-hmm. arxee nii sàmmal ma asama sa dégg kon déglul ma waxal la fi ma dëkk dama la koy wéyal ma xasura ci sa rooju wa biha kuntu amooju ba mu àgg dégg nga hadra mi ba muy tagg mu ne li ma ko yéene mooy taw bu dul sebet rek bu mel ni suma rongeñ yi xam ne du dara hmm. alaa saqallaahu ardal xeerawaani hayan hmm. ka annahu abarat ka annahu abaratil mustahillaatu hmm. te loolu baax a baax waaw mu ne sàllaa boo fa danga mel ni yaa ngi ci àjjana a ardun arjain mubarakatun lillahi fiha barahinun wa ayatun lu naat su yàlla barkeel hmm. su xam ne sama borom wane na ko biram hmm. su ko bëggee di demal xeerawaan hmm. ka annaha lazzatul jannati so fa nekkee da ngaa mel ni yaa ngi àjjana turbatuha milkiyatun comme si comme misku la. ay jamaraay comme ay jamar la. ak annaha laddatul jannaati turbatuha. miskiyatun waxataa jamariyaatu. gis nga ko bu baax a baax. ah baax na ba mu jaayee ba noppi nag. ci la way wa biha kuntu amuju baldatun yujadu fiha kullu shay'in wa yaruju wirduha min salsabilin wa sahariha muruju bama mattatu rasi suma rotuwaay bopp sarojun saroj la saroj la dëgg wa biha ci saroj kuntu la nekkoon amuju di dengi dengi di wër wëra bi ma daan demal tëddi hmm. baldatun dëkk la boo xam ne yoojaru def na fekk fiyaa ci moom kullu shay'in lépp la hmm. wa yoroju te lépp dana fa teew hmm. ah dëkk la boo xam ne lu ne am na fa te itam jotte yomba ah lu ne am na fa te jotte yomba ah baldatun dëkk la boo xam ne yoojaru def na fekk fiyaa ci moom kullu kullu shay'in mooy lépp la lu ne am na fa. Hmm. waaye ruuju te lépp dana fa teew te itam lu mu mën a doon lu sotti la. Hmm. jot ci yomb. wirduha dogam min salsabilin boo demee ndox mi ñuy naan. Hmm. dafa mel ni yoon de waa jëne di wax naan aynan fiha tusamma salsabila. wasahariha ay xàllam murojun ay jatti la. soo bëggee ci jatti yu naat yu rafet a rafet. demal ci xàll dëkk boobu de. wa banuha ak it ay doomam nu joomun kem ay bidiw lay wa maxaanihim seeni wàccu waaye burojun kem ay burju lay bu baax a baax nitam ñi du comme nit yenn seen dëkkuwaay du comme dëkkuwaay yenn barab yi waaw ay doomam wa maxaanihim ak i seeni wàccu waay nu joomun ay bidiw lañu wa burojun ak i burju baax na nafhatu rayyaha bondi xeñam bu neex boo demee foofa air air bi lay xeñ rek da ngay njëkk a kontaane wa man aha ak gis waayam albahiiju bu daaji rafet ak yi sa bët tegee te yëpp taaru mm. da nga naan fii daal dëkk la mm. waasahiru rubaha ak ay tóor tóori tundam xinatan jab waxtu waa dana tasaaroo asulooju galasi wala lay wala nga xëy suba nga xëy suba teel ba nga gis lay dagg di tasaaroo nga xool couleur ci jàtt ci tund yi ni muy rafetee waasahiru rubaha ak ay tóor tóori tundam xinatan jab waxtu waa dana dagg dana tasaaroo asulooju lay man raaha ku gis sarooj qaala dafay wax ni marsa jannati dunia sax waay ajanay addina sarooj yu sarooj dëkk la boo xam ne boo fa demee da nga naan fii daal mooy ajanay addina wala tara fii illa waakifan hatilan aw yani an xadiran aw tayran xaridan ka annama sayfu Mm. walla ba'da waqtihi mm. awi rabiu dana mm. min ba'di ma ba'uda mu ne boo fi dikkee faslu sëy jamono bi tàngoor gën a tax da nga foog ne ci rabiu nga nekk naa naa tàngoor ji bi nekk bu fi ñëwee ca temps boo fekk rabiu wii na da nga ne rabiu xas ndax li ngay gis mooy taw buy wàcc li ngay Hmm. mooy gàncax gu naat hmm. li ngay dégg hmm. mooy ay wéy bi wala tara fii illa waakifan hatilan aw yaani an xadiran aw tairan xarida ka sayf walla bada waxda fii awit rabiu dana min baadi ma bawda comme le buxtur yi wax ca muy melal noona la demee buxtur yi la dégg ñu jàngoon ci bopp téere bi wali man ñaan na koo xam ne yan saahu dana sori xanaa mm-hmm. wali sarooj mm-hmm. safaratun ay fokkat mm-hmm. wana si jun ak i jooy dëkk la boo ne ku fa miin ba génn fa jooy rek ngay mën a def ndax ni mu demee rek mislu ma laqaytu kem li ma dajeel rek musa saxani waxtu ma soruloohee xanaa woni saroj alonloj ku farul ajam xibari mm. ajam yi song dëkk ba mm. tas ko génn ña fa ne woon mm. ñoo fa tax a jóge moo tax booba léegi noppi dana ma de waaw ah, mis lu ma la xëytu kem li ma dajet mu sax saxani waxtu ba ma solulooyee xanaa wëlli saroj alonloju ku farul ajam abretun rog ngañ tahmi boobu dana dotteeku wasajmun ak njàqare goo xam ne kullama qarra bu demee ba sax rek yéeju dafay jeexi faat jaaxle goo xam ne boo foogee ne dégg mu dal rek mu furle humumun ak i jàqare yoo xam ne xat bu haa seen mbambare mooy seen mbir bun mbambare la marijun mu daa ji jaxasoo ko la hummin ak njàqare hmm. yoo xam ne xat bu haa seen mbambare mooy seen mbir mu diis hmm. xat bun mbambare la hmm. mari jun ma daaji jaxaso kulla yawmin ci bépp ay jaxas wa masaahin ak ci liggéey fi taraji ci yu da way gàtt ci jeego hon jun yu da way jeng ci jeego ak ay yëngatu yoo xam ne yu néew yaakaar la hmm. boobu ba léegi mënuma nekk ci lu am njëriñ hmm. ak yëngatu yoo ne yu néew yaakaar la hmm. waaw wa masaayen ak i lëggéey xasiratul xaddu yu dewee gàtt ci jeego on jeune yu dewee jeng ci karaj bi si yaakaar layte yow mi xellante woon sama bisab dee xumma dogale ko lama xumma ba dogalee fee lii ñaar ma alxuruj yu génn mi laa ci soroj hmm. ellante woon bis bu may génn soroj hmm. mu de bis bu may dee rek hmm. pare ci àddina qaala haarit nee na falamma bayyana ba mu biralee bala dehoo dëkkam wa waxaytu tema mokkal maa li nga xam ne an sa dehoo saddana ko ba mu deralee dëkkam ba ma mokkal wéyam ay xant booba la hóolu ne annahu naka kii allaamatuna suñ borom xam-xam bi la abu sëy mm-hmm. booba la xam ne suñ waa ji dëgg la borom xam-xam bi abu sëy mm-hmm. wayin kaana doonte nekk na alharamu màggat xat aw saqahoo di ko xeewee mm-hmm. mooy dëgërale xeewam bi xëy rin ci jéem doonte màggat am na lu mu def ci xam fa baadatu ma ila musaafahatihi jëm ci joxanteeg moom loxo ba ma ko xàmmee dama gaaw a gaaw joxanteeg moom loxo hmm. waxtanamtu ma màng mu akalatoo bokk ak moom lekk min sax pëti yi ci ndaga hmm. ma dogo moom laa de bokkal lekk hmm. ku jullee kuñ jéggal yàlla jéggal la man salla maa maxfurin lahu man akala maa maxfurin lahu xufira lahu min hadisul muakalati ma daal koy sax muddata hmm. muqaam yi di rek sama nekk sama sax misra ci misra en hmm. soo de juumu ila suwaag yi jëm ci takk takkatam hmm. jëf ni kem tàggoog